Sénégal na ngeen abonné bitim réew na ngeen abonné KBN na sikkal abonné daaru maam Omar da liggéey al sami al alim min saytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وسريته ومن تبع له بإحسان إلى يوم الدين وبعد كنا ba سنت يالا yàlla jublu رسول الله صلى الله عليه وسلم di wax bi bi selaw na te wartu selaw képp ku nekk ci biir tànt bi war nga yëg Cheikh Sadaya Omar Ndaw war nga yëg rasulullahi sallallahu alayhi war nga yëg borom bis bi mi Seydi Makiyu ndaxte ñun ñëpp bi ñuy woote lu ñuy woote bu ñu dëgg si ñun suñu xol yi ku si nekk gaa yi mooy Cheikh Salaay Mor Ndaw tànt bi kan moo koy yëngat mooy Cheikh Salaay Mor Ndaw yéen ñëpp na ngeen alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Aliou Mor Ndaw tànt bi dafa war a yëngatu ndaxte luñ fas yéene jàng fii fayidu min fuyudillah bayee ko si jokku Cheikh Salaay Mor Ndaw kon tànt bi képp ku fi nekk yoro xol bu laab xol bu set tey tey tey tey tey sa bakkan bu jeexee directement àjjana nga jëm nañu laabal suñu xol damay wax ci ndigal Seydi Macky Ndaw ay njaboot la bàyyi waaye njaboot gu ne xam na bopp boppam mooy xalifam Mouhamadou Hassim Ndaw kon nga dégg kaddu gu ñu wax kaddom la amul nganta da xam ñuko ko rek nganta taxut mu ñewut da xam ñuko ko mu délo leen mi Seydi ak rakam ñuy gis fi ñuy di leen wax ne yalla kum safut lan mo lay saf kan moo tax yàlla saf ñu ñun ku ñu xamal yàlla kon kooku nañ ko jërëjëfal nañu jërëjëf alaa yu war ndaw dinañ xamal ne taalibe wala bépp jullit boo xam ne bëgg nga àgg ci yàlla yàlla daa am yoon suuf yi dañ ne wa man lam yakun lahu ustaas fa imaamuhu saytaan soofi nee na képp koo xamante ni amoo ko jël teg ko sa kanam mu dox sa diggante yàlla boo ko xamut ku lay jiite seetaane la waaye ndokku ba seex sa day ambar jëlee ñu yóbbu ñu ba fa yàlla seex sa day ambar daw ruugu yàlla du ko topp seex sa day ambar daw texewut du ko topp képp ku ko texe xam nga képp ku ko topp texe nga ñu xam ne xam waliwu moo gën a jafe xam yàlla maarifati waliyu ashabu min maarifatillaahi soo fiyee ko wax lu tax wali bi nga dëkkër mi sañ taayre ndaw mu xëy sol si moom tee ngoosem jëm tool ya mu bokk yow lekk ngay lekk mii naan ngay naan mii takk soxna ngay takk soxna kooku basire bu nekk ci moom mënoo ko xam ijaab la ci yow yàlla ak mbindéef bokkuñ wa xulquhu li xaaliqi li xalqihi bila misaal kon mbindeef ak yàlla ak bindeef nit ñi bokkuñ yàlla ak doomu aadama dafa am différence waaye nit ki wëliigu yàlla gum doon na ko gis ci nii nii nii nii kese mënu nekk nate nit ki nit ordinaire la yow ngay ordinaire lépp li ngay def mu ngay def kon lu loolu xamal ne kii xam ne yàlla wala kii wëliwu la loo koy xamee ahmadu zurq yi dafa wax ne buñ la kasf woon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg wëliyu da fekk wëliyu bi dañuy rekk ci moom mboolem meloog mbindeef mu yore meloog yàlla subhaanahu wa taala dëgg mooy ki nga xam ne dañuy rocc si yow meloog nga woddowoo meloog yàlla subhaanahu wa kon kooku neexu du xam waaye ñun ku ñu yàlla jox mbindeef la ci biir mbindeef yi am différence ak mbindeef yi nag mi Seex Saraay war daw xawlan wa fiixlan wax ak si jëf lu ñu dikkee kan moo ñu ko dikkee lu mel ni yawaaxit kan la gis rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam te lu tàqali ko moom ci benn minute ku am loolu xam nga Ahmadou Marsi dafa wax ne yent bi sallallahu alayhi bu tàqalee man kem tarfatul ay ni dootuma lim sama bopp si jullit ñi soo maam ñëw ne waxtul hilahiya yaa xaaju ruux ya tooxoo ma daa doo dikk gis rasulullahi sallallahu ba mu nekkee xomar laa wax kéro bako yàlla bindé mu nek Omar ba kéro ñu kéro fi bammel sama mam takulu ko do rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolu khilafatu usman Osman xutbu samaan rek moo mën am lolu xutbu samaan du takulu ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi kulli halat min halat du mos a tàqalu ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam xutbu mom la yàlla jox takwiin wa yamlukumullaahu kalimatu takwiin maa maanaa tax takwiin nekkal léegi mu nekk xutbu saan na ko yàlla jox xul koonoo xidratal xaasin amru takwin yàlla daf ko jox xutbu samaan takwin mooy kun fa yëkkoon nekkal mu nekk sama maam jamonoom ci tarbiya xaas bi nga xam ne yàlla jox na ko ko danaa jàkkaarloo yow namu ci yow xam nga xam Cheikh Silaay Mor Ndaw naa leen ngeen di yëngu du gàmm gi du yomb di dem di gis leen ci xam la gën a xaay comme dangeen xamoo lii mu xubbee la nga xam moo ci ismu latiif rox da baa gën a gaaw ñaan fa soxla bu teew dem xafa xibbi rek mbër ma wan la lu siiw cantu laay sim leer mu salla ba nga fees boo di dem di gis leer fees boo di dem di kaw yàlla gën a ay kum ismu la tii aha cantu laay sim nga sol ba nga fees boo di dem di gis leer woto leen faaroo kem tulaay si meer ubbi na ba nga fees boo di dem di gis leer woto leen faaroo kem tulaay si meer tànn bi loolu si kaw laa wax ku supp laay wax daw sa loxo si kaw woto leen faaroo kem tulaay si meer mu sol la ba nga fees boo di dem di gis leen weesu bi sëñ bi moo neex a tagg dama ne xutbu samaan borom xilaafatu Usmaan takk wiin la ko yàlla jox jàkkaarloo taayir léegi nekkal wëliwu léegi mu nekk wëliwu léegi jàkkaarloo taayir léegi nekkal gong mu nekk gong léegi ku am loolu xurbu samaan moo ko am dama leen bëgg a xamal dégg rek ngeen ànd ak mooy kan ànd ak Cheikh Sidy Mor te xamoo ko lu muy jëriñ yàlla bindi joxulum joxul kenn yaa ngi gis rasulullah sallallahu alayhi wa sallam seen Ahmad ku gën a xam ñëpp degré bi dooleeg ñeent fukki wax mbaane yoo xamante ni kenn ku ne ñi ma fekk gaynde gu taxaw nga xëccu nopp ba ñu dajale doolu googu jox nga mën a jàkkaaroog jëmmi rasulullah sallallahu alayhi wa léegi picc mu jug picc mu jug picc taxaw ne gis naa Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñeent fukki doole góor yoo xamante ni kenn ku ne ñi ma nga fekk gaynde gu taxaw nga xëccu noppi ba fit wexem noonu nga mën a nga mën a dékkoog leer ak Moustapha sallallahu wa sallam bu dul loolu da sooy kem lii karaw di sooyee si safara wan rasulullah sallallahu alayhi sama maam gis rasulullah sallallahu ci point gis yëpp yax satan bilaa manaam lu mu wax wastafi xayra mahjub loolu yàlla sellal ma nga tànn ma dëndal ma sama iab yëpp mooy li muy dàq fu ne bi min wasul leer googu set googu fenn nekkul ci yow mënoo gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba mu pare nu wax wa aari sa mun na waratan bi fay di wax bi yaa azimu yàlla gannaaw bu ma setee nga xam ne benn ak daara nekku ci man naa jàkkaaroog rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon jéego ci mag na moom jéego yee benn par benn noonu la sama maam jàkkaaroog rasulullahi sallallahu wa sallam gis na ko wane ko yasira naa wuddu hippi wa iraatoo yow mu jàng grammaire te xam nawu مويوان أريته إلى رايعا وناكو ويروي بوكو تك جزنا ويروي سياسة بدو مو تينيك بجين بجي ba ci jëmi rasulullah sallallahu عليه wasallam mu ne ko loxo ki moy mustafa sallallahu alaihi wasallam kaw mo no ci gor yaali kan la kon buñu ural morom kay mo buñu ural morom du fi morom kenn abdi maqam rafi'an la masilu ila ya aziz ba gaañaayam la teg ndagum fasal rëkk ci sunu borom amee fa man jama salaam mooy bari mooy baabu salaam di war ci ñun moo dañu gëm samaam du kenn kenn kenn du moom di jaalu laay du seen moom ba gaañaayam la teg ndagum fasal rëkk ci sunu borom ko jawdinam aha xawsul wara bi ba ko xam sunna la teg ak ndago man mi ne woon daaru salaam amee fa man jàmm salaam xam naa ne mooy baabu salaam li war ci ñun moo dañu gëm aha masala bi dee ko jawdinam xawsul wara bi ba ko xam sunna la teg ak inna ko sànni ndaw laa da xalaat sa bët ba la bu def si woon ñu gëm waat nga bu dëgër la ci doon masala taalib bay jàng leen su leen kay te sotti leen mbiram sëriñ bi jar na xam. Ousmane boobu moo jur Seydi Mbacké Ndaw mu yore bindam yore taaram yore doxinam yore jukkam mu doon ko ci kulliyan xalqan wa xaaliban muul buñ muulee Alaaji War Ndaw moom lañ muulee Seydi Mati Ndaw Maki moo da baay ba ci jëmm gi ci xaal ba waaw réer na ñëpp cëram ba Seydi Macky waaw waaw Macky moo da bàyyi ma ci jëmm ak ci xaal ba réer na ñëpp cëram ba Seydi Macky wa wa wa bàyyi ma ci jëmm ak ci xaal ba réer na ñëpp cëram ba Seydi Macky waaw waaw waa di yàlla baaxal kooku jar na ma yàlla Seydi Macky waaw waaw Macky moo na baay ba ci xaal ba loxoy si na wépp cëram ba Seydi waaw waaw Macky moo dëgër mi ñu baax ñëpp la xam mi waaw ku am kii du jom mi Seydi Macky waaw waaw Macky moo na baay ba ci jëmm gi ci xaal ba mati waaw mati moo da baay ba ci jëmm gi ci xaal ba rer na ñëpp cëram ba sey ni mati masala nga wi ñaana pare di gërëm xam naa lu nekk sa xol mooy nga gërëm ñii jëf ji lu benn loxo ñëpp a ñëw nañ fekk si la ci li nga nekk waaye nag dëkk ndoor yu baax dëkk ndoor yu bokk lu ñu bëgg bokk fu ñu jëm nekk benn rek moo leen ji kon maa leen di ñaax yéen waa daayira bi ak wa groupe bi wa deug bi fi ala borom moo ko moom yaa borom maqaamu may wax dañ man man ko wa de inna buqaza fil ardina la yastantiru yaangi pitam seri pitam seri bu ndaw ndaw tuti du nek fi tan fi sa sala borom moo moko mom ken aw fi dara duma usaas mën a wax piccam ndaa du fi ndawram na ba ndaw moo fi saf moom lañ màcc xamuñ keneen soxluñ keneen gasuñ lenn kenn lañ am muy Cheikh Salaay war ndaw dëkk bi man naa fi dara foofu du ay war ndaw seen biir seen biir mooy Cheikh Salaay war ndaw du dëkk seen i Mbakiou du dëkk seen i dëkk ay war ndaw kon nag ñëpp ñëpp jàpp ci mbir mi mbir mi jëm kanam ñu tànn dëkk bi yëpp ba ci tari ba ñu tànn gis ni macha allah sëriñ bi dañu delloo njukkal kii borom talisi la boo ko ñëwee si ci yow mooy Seydi Maki Ndaw yal fay ñu baax guddi waxat la bu doye di waaye soo ko bàyyee nag moo tax bii wax ci moom lu ma xam fu mu nekk sama xaal bu yëngatu ko rek turu Sëriñ Mbacké Ndao laa dégg daa am lu tax waaye yàlla yàlla fay ñu ko baaju baax baaju jub baaju dund ñeent fukki at ak benn ñeent fukki at ak ñett xam lu moom si àddina loolu yombut képp ku la war mën a wax ne Sëriñ Mbacké Ndaw mi ñeent fukki ñett la la dund lii góor yàlla xam mu xam ko ah loolu yombul loolu karaama la lu ko bàyyam defal la daa wax netti ni benn mbir rek karaama gi fu ñëwee mooy Sëriñ Mbacké Ndaw bay bayam di jàngale jàng doomam yëpp ñam fii mag am nañu sens seen bay jàngal leen moom des ba kay jàngal ci benn xal bu ndaw sañu benn alawoon toog xaw a njëkkal karam karam Cheikh Sira ba daw ñëw na ko Mathieu lan mu am lu ko wax ci mbiram alaw mu ne ko yow Seydou Mathieu Ndaw lii fu mënu ñàkk teg alawoo sa kaw lupp mëntu ñàkk waaye Mathieu boo jàngee xam boo jàngul xam soo bàyyi muñ xaas googu moo ko topp bu jàngee xam bu jàngoo xam bàyyi moo ko garantal lu mu wax mu xam lu mu bëgg a nam rek mu xam. ñu ngi jégalu baax sëriñ bi. dundam sànku wul ndaw jëfam perte wul ndaw mbiram tardé wul ndaw Seydi maa waa kooku jar na màggal na ku jubu ta sellal Seydi Maam waaw waaw basir moo ko jàngal Quran moo ko meetal kutub yëpp la raafal Seydi Maaki waaw waaw magi moo ga baay ba ci jëmmaga ci xaal ba dana yëpp cërëm ba Seydi Maaki waaw waaw baay Haasimi mooy sumiyu te doon nit ñu safiyu seydi maakiyu waaw waaw aji moo dabay ba te jëm mag ci xaal ba moo benn bëtëm ba seydi maakiyu waaw waaw wilayaam gërëy na wilayaam gërëy na karamaam ya siiw na ijaabam ga wér na Seydi Maki waaw waaw Maki moo na baay ba si jëf ma ci xaal ba réew mi mu calam